waaw ne carte bii maa ngi yëgal ñëpp fu ñuy wax fële ca daaru luxus ca Morolan at bu jot fa lañ koy defee ren mu ngi tombeek le vingt cinq août ca daaru luxus ca Morolan comme niñ koy defee at bu jot may def waxtaan ba muy conférence ñu ngi ciy woo ñëpp góor jigéen mag ak njaw mag ak ndaw ñëpp képp ku nekk Sénégal rawati nag ñi nekk ci tund Morolan di fa yeewoo ñu ngi leen di wax ne bés bi seen bés la ba ca kër siñ Alpha Comban li nga xam ne mooy sëriñ Babacar si ca tund wa fa tabaarakallaahu njabootam yëpp ñu ngi leen ci invité di leen wax ne mbir mi seen mbir la ak mbooleen dëkk ya wër daalu daa wër daalu daaru luxus ñëpp ñu ngi leen di invité daaru luxus inchaa allahu taala le vingt cinq août deux mille dix huit ca tàkkusaan ñun ñëpp ñu dajee fa incha allah salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.